bam lekkee garab gañ ko tere ci aljana bam tuubal yàlla lu tax yàlla asibtel ko nangul ko tuub ga ci barkeb yonent bi la daawada bam yégee ne yàlla nattu na ko mu jéggalu suñu borom yàlla jéggal ko nee na loolu siru bi ci barkeb yonent bi la yusufa biñ ko tàbbilee ci biir teen ba nga xamee ne amul ndox ngir bëgg ko alak ay doomi baayam te ca gënoon a mag mooy yehoo saa bokkut ak bunyaamin bunyaamin moom moo ci gënoon a féetee ndaw mooy ki nga xamee ne moo ko yónent yàlla yuusufa ñoo bokk ndey ak baay waaye moo ci gënoon féetee ndaw ndax moom bi nga xamee ne moom la ko yaayam di jur moom Bunyaamin yaayam dafa ñàkk bakkanam faatu ci la génn aduna mu des fi nag dundu kon koo xamee ne yaayam ku teel a faatu la ba muy judd rek te la yaayam faatu tabaarakallahu ki ci magoon nag mooy Yehoosaa moom daal Quraan di wax qaala qaa'ilun minhum laa taqtuloo dafa bañoon ne bu leen rey Yuusufa bu ko rey mukk moom dafa tax woon rek am cofel am yërmande ci rakam ji nga xam ne mooy Yuusufa te ay mbokkam bëgg ko rey moo tax ba tey mu ne Yuusufa su génnee ca teen ba tabaarakallaahu yàlla xettali ko ah nee na loolu ba tey ci barkeb yonent bi suru bi ci barkeb yonent bi la. naka noonu Yanqooba jaax gi mu jaaxle woon sunu borom génn ko ci njàqare la bët yi nga bët yi nga xamee ne dafa doon jooy Yuusufa bët yi fan muuru tabaarakallaahu bu ko yàlla xettalee loolu ci barkeb yonent bi la. Insa wax gi nasaraan yi wax ne dañ koo ray sun borom yëkkatil ko boppam mu yeg ci asamaan yi sowe ko ñoom ñi defee ne dañ ko rey te pas-pas boobu lañ am sun borom sowe ko ba jamono ji may wax ak yéen mi ngi dund faatoogut nee na loolu ci barke bi bi la. ba yàgg mu ne tartibu maalil mustafa al muqaddim min al masaaya kala anu xalimi li ma ci wax daal junj na la ma indiwut waaye boo ko bëggoon a toppalante benn par benn lii kii ci daraja yonent bi la amee lii kii ci barke bi yonent bi la amee kooku doo fi jog mukk mu ne xarfu saa yi bunt bi mooy saa yi mu ne sabata sax na inda kulli man fa képp koo xam ne yedri xam na layaat dara na inam na abdillahi naka doomi abdillahi ji afdalul hebaat mooy gën ci jaam yàlla yi mu ne képp koo xamee ne am na ab tomb xam dara fa yàlla ah wala nga am xel rek ndax alquran yaa ulil albaab lay wax yéen borom xel yi sëñ Tuubaa nee na ku xam dara te am xel xam ngeen ne yonent bii di doomi abdillahi ji abdillahi mooy way juróom bu góor moo gën ci jaam yàlla yëpp kon loolu def bëgg ne rek amul kenn ko xam ne am na xel te dara ko sikk sabata sax naa yéen dëkk li man fa képp koo xam ne laay laay xadu kooku du weddi xam na fa moom ne ana abal xaasim naka bàyyi xaasim xabdun jaam la mu faradu bada bu ñu wéetal mu ne sax na ba tey ci képp koo xam ne du faral ji weddi loo ko wax donte sax dëgg la mu weddi ko am na ci nit ñoo xam ne lu doon dëgg sax mën nañ ko weddi donte xam nañ ne dëgg la waaye dañ ko weddi nee na nag sax na ci képp koo xam ne du weddi mukk koo xam ne daal feebaru weddi nekkul ca xol ba moom xam na ne abal qasim di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jaam la boo xamee ne fi ko yàlla teg fa kenn dafa wéet kooku mufradu la ku ñu wéetal la kon yàllaa ko wéetal nekkul ko wéetal boppam yonent bi ni mel yàllaa ko ko def moom waxul yàlla na ko def ma ko waaye yàlla moo ko ko def kon nag sabata sax na inda kulli man fa képp koo xam ne laa yecaadu du weddi lan moo sax fa moom mooy xam na rek ne anal abal qasim naka bàyyi qasim qasim doom loon ci yonent bi ko def na ñu koy wax nag bàyyi qasim la bokkul abdun jaam la mufradu bari bu ñu wéetal képp koo xam ne daal amul feebar weddi xam ne ne yonent bi abdun mufradu la jaam la boo xam ne yàlla ko wéetal sabata sax kaw kawnuhu ak nekk moom yonent bi raisal xalqi di njiitul mbindeef yi xabla suhurihi li jiitu ak feeñam bi isnil xaq ci ndigalug yàlla muy degg nee na ba tey nekk gim nekk njiital mboolem mbindeef yi loolu bala moo feeñ la ko yàlla def loolu ndigalug yàlla ba tey kon loolu ba tey képp ku am xel dafay bokk ci loo ne mooy war war koy xam yàlla jox itam noonu rek la demee dana ko ci kanam kon bul làcce bul foog ne yonent bi dafa ñëw ba màkk juddu nekk njiitul mbindeef wala yàlla yónnee ko mu doog a nekk seen jiit bala moo feeñ ci jamono rek la nekk seen jiit kon sabata sax na kaw nu ak nekkam raisal xalqi di njiitul mbindeef yi xabla suhóor yi njëkku ak feeñam di max naa bala moo juddu ñi fi nekkoon ci jamono yëpp moo doon seen jiit ñi ko fi njëkkoon ñëpp mooy seen jiit lan moo ko waral moo ko def boppam wala mu ne bi is ni ci ndiglu yàlla muy dëgg sabata sax na kaw nu ak nekkam nabiyan doon ku ñu solo di ab yonentu wasanat don ab wéeduwaay wa jadduhu ta boobu maam ji aadamu ta mooy aadama tiinu nekk na ci li ñuy tuddee ban wal jasad ak li nga xam ne moo di yaram mu ne ba tey sax na ci xam-xam bu wér na yonent bi bi ko yàlla di jox xam-xamu boo di ko solo di ko yónni mu nekk yonent boo xam ne mooy xaatimi na bii na waaye doon wéeduwaayu mboolem yonent yi ak nit ñu baax ñi nee na boobu aadama dañ koo tinde boobu aadama mi ngi ci ban ak yaram boobu mën ngaa wax ne daal jëlaguñu roo gi sol ko ci jëmm ji waaye booba yonent bi fekkoon na mu jot maqaamaam nu bootoo xablal baraaya xadin jalat la woo sab xinal jëdd fii tiin yan jëliin kon daal booba roo nekkul ci aadama ba muy dund waaye booba ban la rek man nga ne boo xam ne dañ koo tën kon sabata sax na kaw nu ak nekkam na bien jikku ñu solo wasanata doon ab wéeduwaay wajëdduwoo te booba maamam ji aadama te mooy aadama tiinun ban la wajeesat ak yaram di max naa booba walaguñ ci ak roo ndax nit bo amul roo du dund kon booba aadama dundutoon rek la bëgg wax sabata sax na ana jumlatal kiraami naka mboolem way tedd ñëpp yelloo soona danañu wéedu bi ci yonent bi la dal xiyaam yi fa taxawaay bis penc ba ba tey sax na ci li nga xam ne yàlla jagleel na ko moom yonent bi bu yowmal xiyaamee taxawaay bis penc bu métti ba ñu baax ñi nga yaakaar ñëpp yonent bi la yaakaar ci moom la ñuy wéedu koo mën a yaakaar ci yonent bi lay wéedu bootu kaw ni saxu ak nekkam moom yonent bi raisa ruasa di njiitul njiit yi salaa yàlla julli allahu yàlla dégg nga ali ci yonent bi sufaan ci subu yi wa masa ak ngoon yi mu ne ba tey doon gim dool président yi président yëpp kilifa yi kilifa yëpp nee na loolu lu am la lu sax la yàlla defal na ko ko bu yàgg kon nag maa ngi dagaan ci sunu borom mu juli ci bi ci suba yëpp ak ci ngoon yëpp fekk subaa ngi am ak ngoon rek yàlla yàlla sax dàkk di julli ci yonent bi kon su kaw ni saxuk ak nekkam raisa roasa di njiitul njiit yi di max naa njiital njiit yëpp moom yonent bi sax na ne mooy seen njiit sala yàlla julli ali ci yonent bi allahu yàlla subhan ci suba yëpp o masa ak ngoon yi sabaatu kawnil ardi taxtawa sama fawqu fala yajhaduhu man salima mu ne sabaatu mu ne sax mu ne kaw nal ardi nekku suuf taxta ci suuf yonent bi wasama a asamaan ba tey taxta ci roon yonent bi faw xun kawe goo xamee ne falaa yëcc xaduhoo du ko weddi man salima ku yore xol boo xamee ne xol xol bu set la xol bu mucc la ci bépp ayib mu ne ba tey asamaan mi ngi ci roon yonent bi suuf mi ngi ci roon di max naa ni mu kawee mbindeef yi noonu la kawee asamaan noonu la kawee suuf mu ne kawe gim kawe nag nee na loolu kenn du ko weddi ku am xel mu mucc ko am xol xol boo xamee ne xalbun salim la walaay nee na doo ko weddi xanaa borom xol bu feebar boo xam ne weddi rek nekk ci xol ba. kon sa baatu sax na kaw nil ardi nekkuk suuf yi muy juróom-ñaari suuf yëpp taxta ci suuf yonent bi wa sama ak asamaan ba tey ba tey sax na nekkuk asamaan muy juróom-ñaari asamaan yëpp taxta ba tey ci suuf yonent bi fawxun kawe goo xamee ne falaa yëcc àdduhoo du ko weddi man salama ki yor xel moo xam ne xel mu mucc la kon daal dafa bëgg wax ne lu kawe. suuf lu muy kawe kawe ñoom ñëpp ñoo nekk ci ron ndëggul yonent bi mu féetee leen kaw kooku kenn mënu ko féete kaw ndaw taggu rafet mu jël xarful jiim ne juhoodu kawnihi raisal kurama juhoodu samsi daxwatin fawqa sama juhoodu kawnihi weddug ak nekk moom yonent bi raisal kurama di njiitul way tedd ña mu ngi mel ni juhoodu samsin weddig jant daxwatin boo xamee ne jant bu yor-yor la fawqa sama wu ne dàng ci kaw asamaan yi mu ne kuy weddina yonent nekkul njiitul ñu tedd ñëpp mu ne mu ngi mel ni nga génn yor-yor naaj wi tàng jir mu wóor na la lii ab jant la sa bët yi weddi ne lii kat du jant. kanaa kon kooku lu ko dal benn lay war a doon wanentu wanentu defe naa ne ku génn ba gis jant bi ne lii du ab jant ah ah loolu de kanaa kon borom a wanentu rek waaye jant moom génn na tabaarakallahu mu ne nag ki nga xam ne dafa taxaw temm ne yonent bi du njiitul woy tedd ñi ah, nee na loolu mu ngi mel rek ku génn rek gis jant bi ne lii du jant te fekk jant la. kon juhoodu kaw ni weddi nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam raisal kurama di njiitul way tedd ñi juhoodu samsin mu ngi mel ni weddi jant daxwatin jant yor-yor fawqa sama bu ne dang ci kaw asamaan yi. jaaltu def naa xidmati sama liggéey bi wasa bi ak sama aar an huwalis ko jasa an muy pay maa pay goo xamee ne ji u dana dikkal lii ñeel ma an huwalis ko mu ne nag liggéey bi ma koy liggéeyal aar gi ma koy ar di ko difaandar lépp luñ nar a dugal ci diine ji ma génn ko ci danoo sa ko man borom Tuubaa nee na moom laa yaakaar ëllëg yamal xiyaame bu jaam ñëpp dekkee muy pay goo xam ne moom indi ci kanam suñu borom moo tax mu ne jaxaltu def naa xidmati sama liggéey bi wasa bi ak sama aar an hu walis ko jasa an muy ak pay maa pay goo xam ne yéegi udana dikkal lii ma xan walis ko maanaam bu yomal xiyaame daal yonent bi pay gi pay li may yaakaar pay ga mooy liggéey gi ma koy liggéey rek ak di aar dinaam ji ku ko daal bu ma dekkee yomal xiyaame moom laa yaakaar yonent bi fay ma ko bi hadiyatan mu doon hadiya loxo ci yonent bi waarta ji tamay yaakaar mi ne illaahi ci sama borom was loxo jokkoo ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na nag def naa liggéey bi ma koy liggéeyal mu doon hadiya dong boo xam ne dama ko koy siyaare di ko jox hadiya waaye laajuma ko ci dara hadiya rek laa ko ko jox tabaarakallaahu maa ngi yaakaar ci hadiya ji may jox yonent bi di ko liggéeyal ci sama borom ma jokkoo ak moom du ma tàqalikoo ak mu mukk ci saay rek baatin jaaltoo def naa ko moom yonent bi xis ne muy sama tata fii daare ni aduna ak balaa yaa lépp luy balaa wa minan naarayni wala safara aduna wala alaxira nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom laa def muy sama kaaraange aduna ka alaxira pour mën a mucc ci lépp luy balaa yi aduna yi wëndeelu ci aduna pour mën a mucc safara aduna moo xam bañante wala safara ëllëg yamal qiyaam wañ xam te mooy tàbbi safara kon yonent bi daal ci laay muccee ci lépp luy balaa ak safara aduna ka alaxira ndax moom laa def muy sama kaaraange jismi sama yaram waxal bi ak sama xol wa jamiu xamali ak mboolem samay jëf bisil jalaali ñeel na yàlla muy borom màgg su ma lil mu amali topp ko ñu yaakaaree ci moom ay mbibit mu ne sama jëmm daal ak sama xol ak li may jëf yëpp dama koy jox yàlla sama xol jox naa ko yàlla sama jëmm jox naa ko yàlla samay jëf yëpp dama ko jox yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy mu amal mooy koo xam ne dañu yaakaar ci moom di mbébét di xaaraane ci ëttam jumlata maali mboolem sama alal wa midaadi ak samay daa wal xalam ak xalima gi hëdiyatun def naa ko muy hëdiya lil Mustafa te kañu tànn ka baabi ni xam kay buntu xéewal nee na mboolem loo xam ne am naa ko mooy maali boo boo ne alal rek lépp dugg bu la neexee ne jumla tama mboolem loo xamee ne lii ñeel na ma waaye alal la ci namm lépp loo dañ naan lii alalu borom Tuubaa la rek kooku jox na ko yónnent bi sallallahu alayhi wasallam lépp luy daxaam su ko defee nag lépp dugg loolu majaas la waaye xasida yi muy julli ci yónnent bi di ko tagg di ko sant ak yëpp di ko kañ-kañ yu rafet loolu rek la ci namm moo tax mu ne mboolem li ma moom ak sama daxa ak sama xalima jox naa ko hadiya ci yónnent bi sallallahu alayhi wasallam yónnent bi nga xam ne mooy buntub xéewal kon xam ngeen ne sëriñ bi yorutoon dara ci jëmi boppam loo xamee ne ci boppam lay dellu léppam rek da koo joxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam de kon jumlata maali mboolem li nga xamee ne mooy sama alal moom moom ko wa midaadi ak sama daxawal xalam ak xalima gi hadiyatun jox naa ko muy hadiya lil Mustafa ca kañu tànn ka baabi ni am kay buntu xéwal juttu may naa loo ñeel ko alyoma tey jii bi roohi sama roohu bopp wal badan ak yaram yépp wa waladi ak sama doomi bopp wal walidaya ak sama ñaari way jur yépp ci lu ne fang ci lu feeñ mu ne yonent bi tey jii may waxanteeg moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam jébbal naa ko sama roo jébbal naa ko sama jëmm yëpp jébbal naa ko samay doom bopp yi ma jur yëpp jébbal naa ko sax sama ñaari way jur kenn mostu dégg wi waxin ah waxul sax boppam waaye mu yóbbaale doomam waaye itam waxul sax doomam waaye ñaari way juram kon lépp lu bokk ci moom rek la bëgg wax ndax ku joxe sa roo joxe sa yaram ñeme nga engagement de waaye itam joxe sa doom joxe sa ñaari way jur xam nga ne bàyyi woo dara ndax ñii ñoo la séq kon moo tax mu ne jox naa ko tey jii sama roo ak sama yaram ak samay doom ak sama ñaari way jur ci lu feeñ buntu bopp jeex na nga xamee ne mooy buntu ji mu dugg nag ci buntu xarful hay al muhmalati muy xàllonko gi nga xam ne dañ koo neenal kenn tombut ko mu ne xawaa abul qasim min masaya ma kallax an idrakihil baraya xawaa laq na abul qasim bàyyi qasim min masaya ci ay may maa loo xamee ne kala lot na an idraki walis di ko xam al baraya mbindi fi mu ne yonent nee na may yim làq daal kenn mënu ko wax ci làmmañ wala nga koy bind ci xalima wala nga koy xam ci sam xalaat wala sam xel déedéet loo xam ne daal kenn mënu koo xam la xalima mënul koo bind waxuma la na xel di ko mën a takkan xawaa làq na minal muqaddimi jële ci yàlla muy aji jiital ku ko neex al mukarimi yàlla muy aji teral ku ko neex maaraamuhu la doon na ko sàkku minhu ca moom wama ak loo xamee ne lam yarumi sàkkuwut ko woon nee na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam làq na jëlee ci yàlla muy aji jiital ku ko neex yàlla muy aji teral ku ko neex ñaari tur lañ ci tur yàlla yi al muqaddimi ku jiitu yàlla moo la jiital al mukarimi ku yore teraanga yàlla moo la ko jox nee na yonent bi ci yàlla yàlla jox na ko ko ba joxaale ko loo xam ne sa sàkkut koon ci yàlla xabaaxu may na ko moom yonent bi wahaabun yàlla muy may waa koon bi karimun tey aji tedd bi ni amin bi ni am ci xéewal yoo xamee ne kalla lott na an xaddiha walis ak limam almidaadu daxa yi wal xalam ak xalima yi nee ne sun borom mi may waa koon bi doon buur bu tedd nga xam ne balaa nit da ko ñaan mu defal la nee na may na yonent bi xéewal yoo xamee ne daxa yi lu ñuy mën a mën a bind ak xalima yi donte duñ noppalu sax nee na lottu nañ ci man koo xam man koo bind. xabaahu may na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom may na ko xabaahu may na ko bi say in ci mbir alla si moo xamee ne lam yaxturi du toq mukk wala sa yaxturu dégg nga wala lam yaxturi mostu toq mukk wala sa yaxturu te du toq mukk bi baalil basari ci xelum bindeef nee na suñu borom may na ko loo xamee ne amul benn xol bu mos a toq te dootul mos a toq ci benn xelu mi def ku yàlla bind la sun borom may yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jagle kooku mos a toq ci xelu way njëkk ña te du toq ci xelu woy ñëw ñi kon xabaahu may na ko bi say in mbir alla si moo xam ne lam yaxtur yi mostu toq mukk wala sa yaxturu te du toq mukk bi baalil basri ci xelum bindeef xabaahu may na ko waxaabun yàlla mu di may waa bi jawaadun ka di tabe malikun ka di buur bi kaaminin loo xamee ne lu nëbb la laysa yaraahu du ko gis mukk malakun benn buur boo man di dégg ak ku mën a doon rek nee na sunu borom mi nga xamee ne mooy may waa koon bi doon tabe waa koon bi doon ki ga xamee ne mooy buur te moom nguur guy sax nee na may na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xamee ne dafa nëbbu mooy amul kenn koo xamee ne dañ naan buur la ak koo mën a doon koo mën a doon rek doo gis loolu sunu borom may yonent bi ndax da koo may ba noppi nëbbal ko ko. bu la neexee ba tey malaku goo nga delloo ko ci malaaka di max naa malaaka du ko gis mukk malaaka lu mu am basira basira mën a gis ci mbiri yàlla yi la sun borom jaglal yonent bi may ko ko malaaka du ko gis mu ko kon xabaaxu may na ko waxaabun may waakoon bi jawaadun kadi tabe waakoon maliku kadi buur tamu yàlla mooy waxaab di jawaat di malik may na yonent bi kaaminu loo xam ne aji nëbbu la lay sa yaraahu du ko gis mu ko malakun benn malaaka malaaka lu muy mën a mën a gis la yàlla jaglal yonent bi malaaka mënu koo gis xabaaxu may na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam sol jalaali yàlla muy aji màgg ji wal ikraami ak terale bi ma loo xamee ne waanaa lottu na an sikri walis ak tuddam nisaa mi sama wëy nee na sunu borom mi aji màgg ji di borom teral gi may na yonent bi loo xamee ne kenn mënu koo tudd di ko wëy maanaam ku ko doon wëy di ko nosee da mujj lott ca mooy doo ko man moo tax mu ne loo xamee ne lott na walis ak tuddam maanaam ci anamuk nose man rek lot nottu naa ca moo tax mu ne bi ma wana an sikri nisaa mi kon xabaahu may na ko sol jalaali borom màgg gi wala ikraami ak terale gi bi ma loo xamee ne wanaa lottu naa an sikri walis ak tuddam nisaa mi sama wëy wi sama wëy wi daal lu may mën a mën a nosee naa ji tudd sunu borom la may yonent bi sallallahu alayhi wasallam abawtuhu bi xidmati wa nafsi min saati ila xululi ramsi abawtuhu jox naa ko mooy may naa ko bi xidmati sama liggéey bi wa nafsi ak sama jëmi bopp min saati li ko tàmbalee ci waxtu wi di daw ila xululi ramsi ba keroog ñi may wàcc ci sama bàmmeel nee na jox naa ko sama bopp ak sama liggéey bépp lu ko tàmbalee ci waxtu yi may wax nag ba kerek ñi may dugal ca bàmmeel ba lépp lu ma am rek jox naa ko yonent bi sallallahu alayhi wa kon buntu boobu jeex na mu jël nag buntu xarful qaa'i mu ne qadi wiqaayatun li rijlil mujtaba min sawkatin wa ma yudaahi aqraba qadamtuhu wala asaalu ahdimu mukaafian lima yasuqu karrama mu ne yonent sallallahu alayhi wa sallam qadi samak leex wiqaayatun ak kaaraange la dégg nga ak kaaraange la kaaraange bu mooy li nga xamee ne moo lay fegal mu ne xadii nag samag lex wiqaayatun ak kaaraange la li rijlil mujtaba ñeel tànkub kañu tànn ka di yonent bi sallallahu alayhi wasallam min sawkatin ci li nga xamee ne moo di dégg wama ak loo xam ne yu daax yi dana niroog xaqaraba lu ñuy tuddee jiit mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam su fekkoon ne day dox maanaam daal ci ab xàll jaan ji nar koo jublu wala dégg gi nar koo fett wala jiit ji nar koo fett wala ji wala jam nee na sama lex bii lay dem rek su ko defee tëral ko ci kaw dégg wala ci kaw jiit gi su ko defee ne tànkam ya naroon a dëgg-dëgg wala tànkam ya nga xam ne dañoo naroon a dëgg jiit ji te gisul ko te mën na koo fett wala tànkam ya naroon a dëgg daal dégg mu nar koo fett te xamul xamul ne mi ngi dëgg-dëgg nee ne sama lex bi ci boppam lay jël rek lal ko ci kaw dégg wala ma lal ko ci kaw jiit ga su ko defee nag tabaarakallaahu moom yonent bi mu mucc man bu may dégg di jam baax na bu may jiit gi di fet baax na bu may jal ji di màtt baax na lépp loo xam ne dañ naan Amina Tooke bu la màttee rek nga mën am problème loolu mooy wama yu daay xaqara mooy mooy lépp lu niroog jiit rek jiit moom xam nañ ko day fette duy màtte dik xam nañ ko ba tey moom it day jam. nee na su su ni yii dañoo nar a lor yonent bi sallallahu alayhi sama lex bi lay ñë lay jël rek dëpp ko ci kaw yi su ko defee nag yonent bi jaar sama kaw lex cooy bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii rek lañ mos a déggee wax ju du mel. moo tax na mu ne xaddi sama lex wiqaayatun kaaraange la li lil mujtaba ñeel ñaari tànki kañu tànn ka min sawkatin ci dégg di max naa yonent bi ñaari tànkam bu doon dëgg aw dëgg sama leex lay jël dëpp ko ci kaw dëgg su ko defee nag mu mu jël tànkam yi teg ko sama kaw leex ndax dëgg gi du ko mën a jam. wama ak lépp loo xam ne yu daay yi dana niroon teg xaqaraba jiit jiite jiit itam bu naroon a fett yonent bi sama leex bi lay jël dëpp ko ci kaw jiit gi su ko defee moom yonent bi ñaari tànkam ya mu teg ko sama kaw leex dal di jàll mucc xadamtuhu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam liggéeyal naa ko te wala asaalu déet may dañ ma ko ax di mu di ko liggéeyal mu di aji fayantoog li ma ñeel loo xam ne soo ko dana ko màng karamat ci li nga xam ne moo di ay tirangam bi dama koy liggéeyal faw te liggéey bi du mu ci jóg mukk di ko liggéeyal waaye nag liggéey bi dafa am lu mu ciy séentu ndax ñaareel moom ku ko liggéeyal rek mu di la fay waxtu wu ne rek muy womat ay tirangam di ko ñodde di ko xëcc di ko jëmee ci yow mi koy liggéeyal moo tax ma ne liggéey bi nag maa ngi koy def te duma ma dëñ mukk di ko def waaye nag di aji fayantoog man mooy lu ma ko liggéey rek dafay fayantoog man mooy di ay tirangam di ma jox wan kon xadamtuhu liggéeyal naa ko wala asaalutu du ma dañ ax di mu di ko liggéeyal mu kaafi andi aji fayantoog li ma ñeel la nga xam ne nii soo ko dana ko màng karma ci ay tiraangam di ko jëmee ci man. xidmatuhu danaa ko liggéeyal bil mat yi ci tagg wa salaati ak julli dégg nga baabiye ki nga xam ne mooy suma buntu lil faw si ci texe wali na jaata ak mucc nee na ki nga xamee ne ci moom laa mën a jaar mooy suma buntu ba texe moom laa mën a jaar bu mucc nee na danaa ko liggéeyal ci ñaari anam liggéey bi day jem ci wàllu tagg liggéey bi julli salaatu si temps bi ma si temps taati ba tax moo tax ne danaa ko liggéeyal ci tagg ak julli ki nga xam ne mooy sama baab yi di sama buntu ci texe ak mucc kon yonent bi mooy buntu texe mooy buntu mucc xati ati samak ñaawteef tum xaa farees na leen bii ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa xabri samak bàmmeel waa di xatun ak ndénkaan la loxoo jëm ci moom li yawmi nasri ba ci bisub bi nga xam ne moom la yàlla di dekkal ay jaamam nee na samak ñaawteef yëpp suñu borom far na leen ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam yoratuma benn bakkaar sama bàmmeel mooy fi nga xamee ne tabarakallah moom lañ ma denc bu ma faatoo loolu yëpp ak ndénkaan la yonent bi moo koy moo koy moo koy sàmm moo koy aar du ma gis lenn luy xat-xataayu bàmmeel wala fitnaay bàmmeel parce que loolu yëpp ndénkaan la ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon xati at yi sama sama ñaawteef tum xaa farees na leen bii ci barke bi bi wa xabri sama bàmmeel wadiyaatun ak ndénkaan la loo ci yonent bi li ami nasri ba ci bisub dekki ba ah, ca raw doog sëriñ bi xaada lahu la mataaru la nga xam ne yonent bi heure bu ne du fa jot maa ngi fa de moo koy sirwaay de na ngeen ko xam bu baax a baax xabaxtu denc naa fil xabri ci bàmmeel ba wa fii yawmil jisa ak ci bisu pay ba kaw ne sama nekk fii xidmat yi ci di ko liggéeyal murtajisa di aji jas nee na li ma denc ci sama bàmmeel ak bisu pay ba di max naa loo xam ne daal bu ma duggee ci bàmmeel bi dan ma mën a wéttali yowmal xiyaam bu ma ko amee du ma soxlaal dara du ma jaaxle du ma jàq du ma tiit du ma yëg tar gu du ma yëg méttaay tax méttiwaay taxawaay bis penc ba nee na mooy liggéeyal bi mu koy liggéeyal ba noppi nag te di def xasir yi ci baxru rajas moo tax ne xabantu denc naa fil xabri ci bàmmeel ba wa fil yawmil jasa at bisu pay ba kaw ne sama nekk fii xidmati di ko liggéeyal saa di aji rajas xaaba sooy na allasi ka nga xamee ne surifa dafa wan gannaaw an mat inna bi walis tagg yonent bi ila laqa jëm ci neen ci wax ko walam yëfus kooku du tufu mukk bil arabi ci aajoom nee na ki nga xam ne dafa wan gannaaw waroon a tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye mu woon gannaaw jëm ci neen di wax rek am na ñoo xam ne am nañ xam-xam am nañ xel mu rafet mën nañee tagg lool mën nañee wax lu rafet waaye lépp dañ koo jëmale ci anamug wëy wala wax ju ñorut mu ne ñooñu nag sooy nañ perte nañ sëñ Tuubaa bu moo noon képp ko am xel mu rafet mën a tagg yonent bi rek di tagg yonent bi ndax mooy sa na ëdduna kalaaxara mooy tax nga am li ngay wut ci ëdduna kalaaxara waaye xel moo mën a yor romb yonent bi dem di wax neen sëñ Tuubaa nee na amoo dara kon xaaba perte na alati ki nga xam ne surife wëlbatiku na an mat i nabi walis tagg bi fan la wëlbatiku jëm mu ne ila laqaa jëm ci neen koo xamee ne daal taggut yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu noppi jëm ji wax neen te yaa ngi mën a tagg nee na kooku perte de wala mu fusta doo tuufu mukk bil arbi say ajo do mos am li nga bëgg xayyarahul muxtaaru su maxtaara an kaana abdan faqada muxtaara xayyarahoo tànnuloo na ko dégg nga xayyarahoo moom sunu borom moo tànnuloo al muxtaaru kañu tànn ka su maxtaara mu tànn ko su maxtaara mu tànn an kaana ba nekk moom yonent bi abdan di jaam faqadaa dal di mujj na muxtaara doon ko ñu tànn gis nga mooy sunu borom dana ko waaw ana yow ban tur moo la gënal ñi la doon ko wooyee ci asamaan ak ci waa suuf mu xool turam yëpp ne tànn naa nekk ab jaam moo tax nag sunu borom laata mi wàcc alquran tànnuloo na ko ko bi ko yónni tànnuloo na ko ko moo da nga gis alquran buy tag yonent bi bu koy wax dëgg du jaar ci turu Muhammad waaye turu alhabdu booy xool barab yu màgg yëpp subhaanala si asra bi di gis nga ko ak barab yu bëri kon xayaruhoo tànnuloo na ko moom yàlla almuxtaar ko su maxtaara topp nag moom yonent bi mu tànn an ba nekk abdan jaam faqadaa dal di mujj na muxtaara doon ku ñu tànn kon nag jaam la boo xam ne ku yàlla tànn la mooy ki nga xam ne mooy ki nga xam ne yàlla da koo wéetal mooy koo xamee ne dégg nga du diitante kenn mbagg du rawanteeg moom kenn amul kenn ku muy kursu jëm ci yàlla jaam la boo xam ne daal suñu borom tabaaraka taala moo ko tànnal boppam mu jàll ci buntu bi nga xam ne moo di xarfu daal mu ne daawatu man huwa alqarib wal mujib daxwata daaxihi bi hurmatil xabib dawaamu kawni anlaqan munsarifa ila kitaabihi wa matil mustafa daawtu ñaan naa man yàlla ma nga xamee ni moom alqaribu moo di aji jege jewal mujib tey aji nangu daxwata daaxeehi ñaanuk aji ñaanam bi hurmatil habib ma ngi koy nangoo nag ci xormaay ki nga xam ne moo di soppeeb yàlla bi di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne nag ñaan naa sunu borom mi nga xamee ne moo ne wa isa sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu daxwata daaxi isa daani falyastajibu li wal yuminu bi yàlla alu bi rasulone nee na ki ma ñaan nag du yonent bi de yàlla moom tudd xarib nee na maa leen gën a jege sax seen buumu xol yàlla moom tudd mujib nga xamee ne moom rek moo yeewoo nangu ñaan nee na nag moom mi nga xam ne mooy nangu ñaanu koo xam ne da koo ñaan waaye mi ngi koy nangoo ci xorma yonent bi nga xam ne mooy soppeeb yàlla ba nee na nag ci darja yonent boobu ci laa ko ñaanee dawaamu kaw ni saxuk sama nekk mun sarifa di aji wëlbatiku xan laqan walis lépp luy neen ilaa kitaab yi jëm ci téer bi daal quran wa mat il mustafa atag kañu tànn ka nee na li ma ñaan yàlla daal te wóor na ma ne suñu borom nangul na ma ko mooy dama koo ñaan na ko dama bëgg man borom Tuubaa lépp luy neen ma woon ko gannaaw jëm ci alquran ak tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii daal laa ñaan yàlla na ko yàlla dama bëgg woon gannaaw lépp luy neen jëm ci alquran ak tagg yonent bi te loolu suñu borom may na ko ko wax na ko ci xasida yu bari wane ne xajartu laqa bi sukri wa sikri musniyan alal Mustafa man jooduhu naxu yan sa ci xasida géej gi da ngay dégg muy wax ne moom gàddaay na ni nga xamee ne noonu la yonent bi gàddaay yoon makkatul mukarama jëm madina ngir ñoŋal diinaam ngir sàmm diinaam ba mu gën a yëkkatiku ba mu gën a am doole nee na nag loolu laa gàddaaye lépp luy neen jëm ci tudd yàlla ak sax di ko sant di tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne ay mayam man borom Tuubaa waxtu ne dañuy sottee ko sama wàll. duxaa bati sama kaf wa ak sama ñàkk mat wa xewaji ak sama jeng wa xayrati ak sama ngël mande yusiluha dañal na leen sol faraji borom wuñ ñi sol far ji borom teggi njàqare la di yonent bi sallallahu alayhi wasallam ad duhaba bu ko arab waxee mooy koo xam ne dafa jégg dayo ci fo ci mën a kaf nit ku dofi lañ koy wax mooy koo xam ne fu mu toll rek day kaf alkamal nag mooy firi mat waaye lam ca namu rek mooy ñàkk matadi ni koo xam ne jëfi dof rek tabaarakallahu ci lay nekk mu ne yàlla far na ci moom loolu wala nit koo xam ne dafa def lu ñuy wax xewaj mooy dëng muy jeng ak lu ñuy wax ngëlmande mu ne yii yëpp boo leen boole yonent bi nga xam ne mooy sol faraji mooy borom teggi njàqare yi mooy dindi na leen ñoom ñëpp parce que yii yëpp ku nekk ci moom rek bu fekkee nit nga te doon ab julit war ngaa jaaxle. moo tamit duxaa ba duxaa bati sama kaf wa kamali ak sama ñàkk mat wa iwaji ak sama jeng wa xayrati ak sama ngëlmande yi si luxa dañal na leen sol faraji borom teggi njàqare ya daxa woo na ma mi daadi sama daxa waya di ak sama loxo. waxale mi ak samay xalima li mat yi jëm ci ak tagam dawaamu woo faw saa karimi di borom tedd nga sama daxa moo ma woo sama loxo yi woo ma samay xalima woo ma ma jëm ci di saxal tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam faw waaye ba noppi nag di borom tedd nga sama loxo daal daf ma woo ak xalima gi daxa daxa ma jëm ci saxal tagg yonent bi waaye jëlee ci ak tedd nga aku kawe daamat lahu ta'addubun ma'al badi wa ma'a xalqihi muta'an wa muti daama sax na lëxoo ca moom taaddubun ak tegginu moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam mahal badi ànd koog yàlla muy aji fent jaam ñëpp te xoolul ko fenn wa maa xalqi waaye ànd koog mbindeef yàlla yi taa an doon ku ñu topp wa muti doon kuy aji topp yàlla mu ne yónni gi ko yàlla yónni woon mu nekk ci na moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa doonoon ku daan topp yàlla ba noppi ñu topp ko waaye topp googu dafa amoon tegin gu doxoon digganteem ak borom ci digganteem ak borom ci topp gi muy topp yàlla waaye mbindeef yi topp guñ ko doon topp rawatina saxaaba yam jamono wante ak ñoom dafa amoon teggin gu doxoon digganteem ak saxaaba ya ñoom sax da leen rus ruus gis nga da ngay jàng ci alquran yu bëri yoo xamee ne bi ko yàlla di wàcc day wane ne yonent bi dafa ruus a wax saxaaba yi lii yàlla ne wallahu laa yastaxyi min alxaq yàlla kan moom amul kersa maanaam xam dëgg ba noppi tabaarakallahu ñàkk koo wax ah donte yonent bi nag moom léeg-léeg tabaarakallahu baaxam gi dafa toll foo xamee ne léeg-léeg danaa ruus saxaaba ci yu ci biir këram yu fa daan su ko defee nag du leen ko nangoo wax waaye yàlla mooy wàcce aaya ba noppi daal di koy wax kenn du yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon daama sax loxo ñu loxo ci yonent bi ak tegginu maal ba di ànd koog muy aji fent jaam ñëpp wa maa xalqi ànd koog mbindeefam yi mu taan doon ku ñu topp mu doon kuy aji topp yàlla dafa bëgg wax ne daal digganteem ak boromam dafa amoon teggin gu ci doxoon digganteem ak mbindeef yàlla yi dafa amoon teggin gu ci doxoon su ko defee nag mu doon toppkatub yàlla doon ku ñuy topp topp gi muy topp yàlla dafa amoon teggin bu dox digganteem ak borom topp gu ko mbindeef dafa amoon teggin gu doxanteem digganteem ak biddeef yi day danu hoo aadam daal ijlaali mooy màggal si samay borom asamaan ya bi rahmatil xalqi ànd ko yërëm biddeef yëpp bi naa ci lu muy seetee kenn ñëpp lay boole yërëm nee na aadam daal boo doon wax waaw kii lan mooy tabiam lan mooy mbaaxam lan mooy aadam daal dëgg-dëgg mooy foo ko fekkaan rek moo di màggal yàlla muy borom asamaan yi waaye nag eh, daf cee toftal bindeef yeeg yéeféer ñeeg jullit ñeeg mbokkam ak ñu doonoon mbokkam ak ñëpp la daan yërëm du ci bàyyi kenn mosoo gis ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam kii ngir lii ngir nangam ñëpp la yemaloon moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon day dañoo aadam boo koy laajte ijlaale mooy màggal ci samaay borom asmaan yi kat bi rahmatil xalqi ànd ko yërëm bindeef yëpp bi istisnaay ci lur ak seete ñëpp la daan yërëm dami sama deret nag fi daawun jot la li xuróoji damihi su fekkee deretam dafa nar a génn wa maradi sama tawat ba tey fi daawun ak njot la daa u jismihi su fekkee jàngoro yaramam dégg nga dafa nar a génn na ba tey su fekkoon ne deretam dañ koo nar a tuur kooku man man borom Tuubaa joxe naa sama deret ñuy tuur ko yonent bi deretam bañ a tuuru bu ngeen ma gisul sama njaboot ku ngeen ci mën a jàpp rek su fekkee yonent bi nar a faatu deretam génn sama njaboot ku ngeen mën a jël rek def leen ko noonu pour yonent bi rek am na feneen fu mu koy wax nee sama njaboot jotee naa ko yonent bi dégg nga boo demee ci xasida googu gi mel ni rek lillahi rabbil lati qad jaadali bi huda wax na ko fi mahat mahabbati al muxtaari sayidina hubbil maqaaniya wal ahlin wal walada dammi gis nga wa ahli soxnaam yi dugg wa awlaadil da loo habdan qadiima lahu muskaana li sanada nga xam ne nee na foo fekk sama soxna ñu ne bi dara tama war a wala sama doom wala man sama jëmi bopp su fekkee am na luñ ko mën a jotee njot mooy buñ ko defee lañ naroon a def mbir moom mën naa mucc lu mel ne yonent yàlla Ibrahima bi nga xam ne sunu borom nekkaloon na ko doom ji mu dem nag am ci ñeewantoog yërmande ba waxanteeg waaye nag bi mu demee ba bëgg ko rend rek yàlla doxalee am xaaf muy indi ab xar xar moom nag moo tax rendiwut ko waaye su tax doon xar moomu tabaarakallahu ah konoon danañ ko rendi kat konoon danañ ko rendi kon nag loolu li yàlla day wane rek maanaam dégg ndigal dafa baax waaye itam yàlla dana ko natt yàlla léeg-léeg dalay natt ci li nga gën a bëgg Ibrahima yàlla natt na ko ci doomam Ismaayil gis nga ko mu gënal ko maanaam yàlla ko gënal doomam ja yàlla natt ko natt ko ci alalam lépp gis nga ne yàlla da ko ci natt ba nëpp dégg nga su ko defee nag Ibrahima di xam le moom yàlla moo ko gënal lam ko natt kon nag mu ngi noonu ñun ñii ku fi yàlla nattoon ci sa doom wala mu natt la sa alal rek wala da nga xam ne yàlla jarulul dara. kon sëriñ bi nag nee ne deretu yonent bi su naroon na génn man joxe naa sama deret pour yonent mucc su fekkoon ne yonent bi dafa nar a tawat tawat ju métti man pare naa pour tawat jooju marangoo ko wax jooju kenn mos koo dégg kon dam mi sama deret fii daa un jot la li xuruji dammi su fekkee dereta moom yonent bi dafa nar a génn wa mara di tawat fii daawun kooku ba tey njot la daa mi jismihi mooy jàngoro yaramam su fekkoon ne yaramam daal dafa nar a am jàngoro jàngoro jooju man nangu naa ñi teg ma ko yonent bi ñi teggil ko ko woo waxin kenn mos koo dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu dugg nag ci xarfu saali al xarfu saali al muxjamati di xarfu saali al muxjamati muy del ju tooy ji nga xam ne dañ koo tomb mu ne salla bi jaahil mustafa matbuhu wa taabixun li annahu marfuuhu mu ne waaye salla toroxlu na bi jaahil Mustapha ci darajaay ka ñu tànn ka mat boohu kada ka ñuy topp wa taabihun tey aju topp yonent bi li annahu ngir naka moom yonent bi marfuuhu mooy ka ñu yëkkati ki de mu ne mbindeef yépp yonent bi sallallahu alayhi wasallam la leen yàlla joxoñ ñoom ñëpp itam dañuy wàcc seen bopp ci roon yonent bi sallallahu alayhi wasallam lépp luñ soxla ci yàlla bu dee lu ñuy ragal dañuy toroxlu ci darja yonent bi yàlla musal leen ca la ñuy bëgg dañuy toroxlu ci darja yonent bi su ko defee yàlla jox leen ko moo tax mu ne moom mi nga xam ne mooy ki yàlla santaane ñi topp ko mooy mat bon su ko defee nag taabion mooy kuñ topp ndax lu tax mu ne yonent bi mooy ku yàlla yëkkati mooy ku yàlla farlekat li annahu marfuuhu yàlla da ko yëkkati ci kaw ñëpp kon nag ñëpp moom lañ war a topp sala toroxlu na bi jaahil Mustafa ci daraja ñu tànn ka mat bon ka ko ñuy topp wa taabixun tey aji topp ko li annahu ngir na ko moom ah marfuuhu mooy ku ñu yëkkati de kon moom mat bon la yàlla santaane mooy mafulun bihi ñëpp def leen topp gi jëmee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn kon ñoom ñëpp dañoo toroxlu ci barke bi ngir topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax mu ci dara yàgg ñu tànn ka mot bon kat ku ñuy topp wa taabi'un tey aju topp toroxlu topp ko ngir nag moom kat man foo mooy ku ñu yëkkati léegi nag am na koo bañ léegi nag lay misaal torox tànge dal muy Musaylimatul Kasaab Musaylimatul Kasaab yàlla ci moom yàlla yàlla musal ci moom fenkat boobu nga xam ne yàgg ngeen dégg histoire am lool yonent bi moo ko tuddee musaylimatul kasaab ba sax borom xam-xam yi nee buñ ko xoolee fen lay ne yonent bi lu mu wax ci làmmiñam rek loolu la yàlla di def abu jaxlin tuddutoon abi jaxlin waaye itam réer googu sax moo waraloon sëñ Tuubaa nee na mu dem ba dar ñu rey ko waaye boo taxutoon lu ko yonent bi tuddee kon du dem ba dar ñu rey ko lakinnahu nisu dégg nga lakinnahu jarahu nisfu ismihi li radan fa hasu kulli musamman min sumaawu sama dégg nga kon lañ ko tuddee moo ko yóbbu Badar bañ rey ko fa Musaylimatul Kasaab moom it lépp lu mu waxaan même bu waxoon sax lii ndox la ñëpp xam ne lii ndox la day fen bu waxee ne lii ceeb la ñëpp xam ne lii ceeb la day fen bu waxee ne lii géej la ñëpp xam ne lii géej la day fen lu mu a wax rek day fen parce que lu ñu ko tuddee Musaylimatul Kasaab dégg nga mooy fenkat bi moom moo doon woote nu bootu dégg nga wane ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam day jël wàll ñaar ñëpp kenn ku nekk ab yonentu la dañuy xaajoo yonentu gi xoolal boobu wax rek yàlla yàlla musul ci xayam wa mu ne salla torox na musaylimatu fenkat bi di musaylimatul kasaaf yi na jaara ci waxtu wa nga xamee ne jeng na nee na waxtu yi nga xam ne dafa jeng di woote nubuwa naan man ak bi dañuy xaajoo su ko defee nag mu jël lu féetee Makka lu féetee wàllu yaman yépp mu nekk sama loxo nekk ci man muy woote yonentu di doxal man may woote sama yonentu di doxal moo tax nag mu ne bam jengee rek ci la torox moo tax mu ne salax torox na musaylimatu nguur sañuy wax musaylimatu lii na jaaraat ci waxtu wa nga xamee ne na muy woote na nubuwa ak mbontem ak ñaawteefam waxam yu bon yi muy jëmee ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la torox mu ne lii na waxtu wam jéngee man yonent bi nga xamee ne fii sama ci biit asamaani wal ardi ak suufi laayu jaara kenn du ci rawanteeg moom. sillata man torox tàngu koo xamee ne wasatal mala dafa jikk ci diggu mbooloo taxawataal dal dafay xayta dal di fay xayta xam nga yuy xas kenn mostu dégg ci mbindam sëñ tubaam mu di ko xas kenn kenn kenn kenn kenn mostu dégg loolu mu ne Musaylimatul Kasaab bam jengee yonent bi nga xam ne boo doon wirifee asamaan ak suuf amul kenn kuñ koy tëkkaleeg mu ñëw nag di tëkkale boppam ak yonent bi bal sax di jël boppam di ko teg ci kaw yonent bi mu ne booy misaal torox tàngem xam nga torox tàng bi lii aw xas gënul ko gënul ko rëy wax nañ ne sax sëñ Mbàkke Buso ci boppam bi mu jàngee woy wi dana ko waaw yow lii moom loo ci jublu maanaam pour wax ji maanaam keemaan gi ci nekk mu ne ko sàllaahu de sëriñ Bakki Bousso képp ko xamul tegginu yonent bi képp ko xormaalut yonent bi doo mën a xam sama tegginu xalima gi kon moom moom teggini xalimam yaa ngi ko doon mën a xam ci nga bëgg yonent bi waaye nag soo ñàkkee teggin yonent bi rek doo xam tegginu xalimam ndax wax la joo xam ne jo xoromo xam nga silla taman wastal mala taxawataa mu ngi mel ni mbooloo lëmm masan bu mu ko doon misaal say moromi mi bàyyi ñëw toog ci pinc mi di waxtaan nga ñëw ba ci pinc mi yemoo ci rek danga simmi sa yére yi bam set wicc nga taxaw ci digg datt ci digg mbooloo mi ba noppi xayta fa xayta mooy dem fa àll xam nga gis nga jamono jooju ni lay nit ñi da xoolee xam na yow kat da ngaa torox sa xel ne fi torox nga donte yaa nga ànd ak sa xel waaye nit ñi dañuy xam ne loolu ku ko def da ngaa torox rek ñëw ba ci digg say moromi bàyyi say maam nga fiti sa tubay def yaramu neen ba noppi xayta fa xoolal loolu rek xoolal loolu rek bon googu yàlla ñu ci yàlla musal waaye sëñ bi nee yemut ca mu ngi mel ni ba tey xayta googu mu doon xayta taxaw ci digg ay bayam ay maamam ak i rakam ak i doomam da cee dafa def lu ñuy wax maanaam ngalawal mu ngalawal ngalaw lu xañ ay mor mi baayam ak doom ak doomam ak ñëpp ñi ngi toog ci dàtt yi su ko defee nag ngalaw li di leen xañ ñoom ñëpp xam def naan foofu la yem. ci koo xam ne nag daroon woote nubuwa sëriñ bi xas ko lii ndax daroon jenge yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga lii kooko wax nag dëgg-dëgg xas nga ko xas nga ko fu xas yem te itam lu reelu la nag lu reelu la parce que sëñ bi da koo xasee ñett te ñett yi man nga ne kuy xayta ñaareel man na laa dal te boo nekkee ci biir wana am nga kersa di ko def nit di la dégg ndax barab ya nga koy defee da ngay suturlu muy xayta ndax léeg-léeg nit ki xayta te du tuur ndox léeg-léeg mu tuur ndox ta du xayta waaye mu boole na la ko dal dafa mel ni ku nekk ci biir mbooloo xayta fa tuur fa ndox ba noppi nag ngalawal fa mbooloo mépp di ko gis xam nga taw tàng moom foofu la yem tuur na fa ndox xayta fa maanaam ngalawal fa yii yëpp def na ko ci biir mbooloo ma xam nga ne lii gàcc la moo tax mu ne sàlla torox na musaylimatu musaylimatu lu ko waral mu ne xii na jaara waxtu nga xamee ne jéngee na bu la neexee nga ne xii na jaara waxtu nga xamee dana rawanteeg rawante gi mi ngi ci jublu rek dafa waxoon ne dañuy séddoo yonent gi ma nekk yaman mu nekk makka yilif leen su ko defee muy doxal may doxal moo tax mu ne torox na muslimatu xii na jaara waxtu wa nga xamee ne dana rawanteeg man yonent bi nga xamee ne fii samaay ci biir asamaan yi wala ardi ak suuf yi laayu jaara kenn du ci rawanteeg moom moom mu jóg ne dafay rawanteeg yonent bi toroxtaangeem nu mu mel borom tuba mu ne sillata man kem toroxtaange koo xamee ne wastal mala dafa jikk ci digg mbooloo ma taxawataa di fa xayta wa baala ta mu tuur ndox ca biir mbooloo ma xor yaana raflihu mooy solut dara solut mbubu solut dara dara dara solut tuway su ko defee wa darataa mu ngalawal nag jëxran ca kaw ñoo nekk ca mbooloo mi ñëpp di ko dégg xam nga loolu kersa la loolu gàcc la toroxtaange la mu ne daal musiri mi du torox na li ko waral yëpp mooy da doon rawanteeg yonent bi nga xam ne ci asamaanu suuf yàlla bindul kuy rawanteeg yonent bi mu misaal nag torox tàngee gim torox moo tax suñu bàkki bu na ko wax nga li ëpp de. mu ne ko sàllaaw ku xamul sama tegginu dégg nga ku xamul tegginu yonent bi doo xam sama tegginu xalima mu ne dafa mel ni torox tàngee koo xam ne dafa jikk ci digg mbooloo ba ñett dal ko fa. bi ci njëkk mooy ku ne xam ne na magam jëmm rawatina ko ni Musaylimatul Kasaab wane ne kilifa la wane ne moo yilif côté yaman ak la caaju yëpp su fekkee sëñ bi da koo da koo ŋàññi na ko da mel ni ku toog ci biir mbooloo say baay ak say doom ak ñëpp toog nga def taatu neen yemoo ca nga toog ci seen biir xayta fa yemoo ca nga tuur fa ndox yemoo ca nga ngalawal fa ñëpp di ko digg mu di leen xañ xam nga darata mooy xet gu naqadi rek mooy mooy ngalawal xet goo xam ne ku ko dégg ku ne rek dana xam ne lii ngalawal la kum xañ rek danga xam ne lii lu sibu la ndax dara te mooy firi axraja rihan min istihi maa sawtin wa raihatin kariha xet gu naqari tabaarakallahu la génneekoon ca biir mbooloo ma xet goo xamee ne mbooloo mépp dañoo jël seen baaraam ya taf ko ci seen bakkan ndax la leen di xet ci seen biir lafa fa Musaylimatul kasaab def mooy mbooloo ma ci boppam loolu neexut leen allahu akbar wii xas bokk yi mosuñuy dégg ku ko sëñ wax am na xasida gu tudd man jaa abil xasana boo ca demee xas na ko yeneen xas ba tey wu kéemaane kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko kenn rawanteeg